aasbillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim comme niñ leen ko waxee woon rek si tàmbale bi ñoo ngi fii si kër Serigne Fallou Ndiaye di xale ba Serigne Madiou Ndiaye eh, nekk fii sa Mekhe eh, xam naa di ñëw di ko ziar si di ko di ko tataan ak ñaan eh, di ko fàttaliwaat rek mu fàttaliwaat mbokk taalibe yi li nga xam ne moo sabab bis bi soññaat ñu fàttaliwaat ñu xam naa dañ ko jox kàddu gi rek incha allah. kon noo ngi nuyu mbokki yëpp ci ndigal Serigne Mbaye Madame Ndiaye mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ak mboolem rakkam yi mu bokkal kër Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane Serigne Mbaye Madame nag moom la yàlla dugal muy xalifa Cheikh ma nga mag may landang di ko màggal nii nu koy màggalee. nga xam ne li fii teg walla Touba lépp tey jii ñi li ci ëpp ñu ko biir may landang ànd ak sëñ Bay màggal ga fii Cheikh Moustapha Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu mag moo fi jiite mbooloo mi kon noo ngi leen di maase di sant ñoom ñëpp te di leen gërëm dee di leen ñaanal te di soñ nag mboolem ko yaakaar Cheikh Babacar Thiaw Kane bis bii nga xam ne amul lu ko ëpp amul lu ko gën nu bokk fonk ko ñu ko mag ñi fonk woon bokk jàpp ko ni ko mag ngi jàppoon bu mag si fi mu mag ngi nekk fi di ci def leneen ñu war a def ba bis bi mel ni mu mel ñu indi ko fii mu ko indi kon bu ñu fa desee wuutu leen kenn ku ne war naa fam itteem ak ak bëggam ak xalaatam ak xelam lépp jëmale ko ci bis bi ànd kook ndaw ñii nga xam ne ñoom la ñoom lañ fa teg ci ñu yor bis bi ñu ànd ñoom liggéey bi yéen ndaw ñi maa ngi leen dénk te dénkaane dafa jot gis naa ci réew mi loo xaayee royatuñu ak jullit këccëg la loolu mooy lan ñu ne dañ lay may soxna nga baas baas takki panaal mel ni tij mel ni catholique bu ñu may soxna loolu lañ ko dakkal dub cër nan roy la mag ñu rey ñu may la soxna nga baasi baas takki panaal mel ni catholique bu may soxna loolu nañ ko delloo ginnaaw di diine du lislaam du ngor du taalibe sëñ Muntaxa joxe na ndigal ñu wàññi euh, euh, euh, ci ni ma ko waxee njëgu jigéen ñi li sëriñ Mountakha joxe nañ ci yem ket waaye ku ci takk soxla di jaay ngóor di ma ay millions ak milliards loolu tegul fenn doom ci juddu am barke ku ko digg barke du dëgg mënu ko am doom joo def million mënut am barke de doom joo def milliard mënut am barke de kon nañ seetaat suñu xel bu baax fa sëriñ bi tegen tànkam ànd ak nun ànd ak suñuy waajur ba jóge fi foofee nañ fa teg suñu tànk lu sëñ Tuubaa bëgg nu bëgg ko lu mu gàntal nu gàntal ko sëriñ Fall wax na ci wooyu fële jigéen ñi sëñ Abdul Ahad Mbakke wax na ci sëñ a wax na ci yetti kaddu yi war na duy sëkk am njàngat waaye nga jàpp ne ku muy sa doom un matul jëkkër loolu nañ ko teg fi du suñu cër ñoo ngi leen sant bu baax nag ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal bisab tey bii lu indi ci itte soo doolee sunu borom faj ko lu fu indi ci njàqare soo doolee sunu borom maasal ba du tëj tëg bët borom bis bi attan na ko mën na ko yéen peres bi ñu ngi leen sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal yal na yàlla fekku seenu fan yal na yàlla euh, dool leen xel ci barkab Sëñ Tuubaa ak Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane suñu xol sedd na bu baax waaw na ngeen góorgóorlu lu baax li ñu wax lépp yéen ko moom. jërë ngeen jëf suñu xool sedd na baax a baax a baax a baax baax ñu sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal ci barkab Sëriñ Tuubaa barkab Seex Babacar Ndiaye Thiergane yokku leen laxasaay yi jërë ngeen jëf